ay gaal yu teer géej gu ngelaw ay jën yu ñàkk te cher ak ay nappkat yu jaaxle loolee nag dara waralu ko dut seddaay bi ñu nemmeeku jamono jii. franchement sedd na wax dëgg fee la mais doon na li nga xamante ne aussi euh, booy xool mooy suñu liggéey parce que bu ñu amoon ci leneen lu ñu jàpp yaakaar naa seddaay bi tamit am na fu mu gën a neexe mais nag amuñ ci leneen luñ jàpp kon foog ñu obligé dem dem géej sedd ci mbaal yi. géej gi sedd na. jën yi lamb na jën yi jarul mool sonn nañu te ngelaw li mi ngi mool yaa ngi dem ci géej gi di am ay gàllankoor ay problème xam nga ñun dañuy yendu fi suba ba ngoon jot ñu liggéey parce que jën yi jarul bu ñu buñ ko jaayee du jar façon jafe-jafe boo ci xalaat rek moo ngi ci parce que des fois ñu ñëw suba teel gi jaay mu gaaw a dem balay 10 heures 11 heures mu jot boo gisoo géej gi nii di nga xam ne sedd na trop si ñun façon yere bu nekk la ñuy sol ñëpp pour toog jaay. daanaka sax seddaay boobee moo waral jaaykatu jën yi ak ñenn ci client yi di wute xalaat ci ñàkkum jën gi ak seeraay bi waaye Alioune Diop di ab nappkat di ñu xamal ni naam sax jën am na waaye di wanteer seeni jën itam du leen gënal. sedd ba mu commencé ba tey nag bu dee wàllum filaturne yi fii jën bëriwu fi noonu bi moo fi am ah, ak jay sew bi xur bi. mala wëyëng bi yam bi moo fi am xawul neex noonu si gaalu côté bu dee côté gaalu maare côté gaalu maare moo tene jaaxal muus bi ak thon blanc bi moo fi am. ñi kañ day am période sedd bi la jën am période tàngaay bu nawet bi ñëwee la jën bari waaye période bi jën am na te gisuñu benn client xawma li ñuy defar talibee tax xaw ma loolu xam ne raay bi client di gisatuñ ko gis nga ñun si suba ba tey ñu ngi toog gis nga bant yi yëpp a ngi nii. am amuñu benn liggéey. jën moom lu muy wàcc du bëri parce que frais yi moo bari jën daa bari frais gaal gi dina yóbbu glace dina yóbbu essance dina yóbbu mepp dina yóbbu ravitaillement pour mool yi li lekk comprendre nga moo tax jën bi du mën a yomb te ghetto yi daa sori. comme seddaay bi nga jóg 5 heures du matin dugg ci seddaay bi dugg ci géej gi wax dëgg fee la boo ñëwee ñu wantaate jën yu fan yi yëpp ñu ngi koy ñaxtu jën yu seeru waaw kooku moom nu ñu mën a jàppale rek xam nga nañ ci jàppale jën yu seeru parce que tamit jóg di dugg ci ndox mi xam nga dem ba ñëw wax dëgg fa nga ñëw ñu wanteer sa jën yi moom kooku moom doxul. ñàkk a topp li di tegtal waa météo nekk lu leen mën a jural ay loraange waral kapiteenu gaal gi di ci indi ay leeral. franchement loolu doo doon li nga xamante ne kuy wax xëy na mool yi tamit ñu ngi dox de dégluwuñ météo dañuy wax li ñu xamut rek parce que yaakaar naa ni ñun ñuy xëy depuis cinq jóg dugg ci ndox mi di jaay suñu bakkan kon kooku doon na li nga xamante ne bu ñuy naan dégluwuñu météo dañuy wax li amul ñun ñu ngi déglu météo bu baax di leen bàyyee xel parce que tamit am na façon tàng yi nga xamante ne bu la fekkee ci ndox mi kooku doon na li nga xamante ne erreur lay doon ci yow kon loolu xëj na jarul ñu ciy sori ñu ngi déglu météo bu baax parce que yor nañ seen i programme temps bu jógee aussi tamit dañuy expliqué temps jóg na ñu xam ban heure lay jóg ak ban heure lay jeex kooku dañ koy bàyyi xel bu baax a baax. ñuy faral di am ay jafe-jafe ci géej gi ñoom mool yi bi ci mujj di ñenn ci ñoom ñu ci ñàkk seen bakkan ci fan yi ñu génn loolee waral ñoom ba ci sax jaaykatu jën yi di ñaax nguur gi ngir mu indi ci ay saafara.